Kamasinig ak Njaafaaj ak ñaawul ak Hiréna cinq parties yooyu nag buur bi nga xam ne moo yëlifoon royaume bi euh, def ko defa def ko divi ko xaajoon ay pàcc-pàcc yoo xam ne bu ci nekk def fa tegoon koo xam ne kii moo ko doon commandé maa ngi fàttali euh, maa ngi wax ni euh, fii ci biir réew mi buur bi dafa amoon ñaar ñoo xam ne ñoo ko doon jàppale ki nga xam ne mooy jaraaf bi ak ki nga xam ne mooy farba bi farba bi aussi dafa amoon adjoint boo xam ne moom la ñuy wax farambin kam ku ci nekk nag danga amoon une fonction administrative mais da nga amoon aussi une fonction politique fonction fonction administrative boobu mooy quand bien même nekkoon nga ministre fii ci Jaxaaw waaye nag terewuloon amoon nga un certain nombre de village ay dëkk yoo xam ne yaa koy commandé mën naa jël exemple ci ci kilifa yooyu nga xam ne ñoo doon wër buur am rang de ministre mën naa ci jël koo xam ne mooy bisik bisik dafa amoon ay dëkk yoo xam ne daf koy administré comme dëkk bu ñuy wax Senghor ak dëkk bu ñuy wax Kër Bisik jaraaf dafa amoon ay dëkk yoo xam ne daf koy daf koy commandé naka noonu aussi euh, partie frontalière yi nga xam ne dafa janoo ak réew mu mel ni Bawol wala réew mu mel ni Saalum wala réew mu mel ni Jobaas dëkk yooyu dafa amoon ay ay ay chef de guerre yoo xam ne ñoo fa nekkoon ku mel ni san gi Diop nga xam ne moo doon commandé la zone nord en face bi nga xam ne moo janoo ak Bawol ak ku mel ni Lam Jaafaaj nga xam ne moo nekkoon ngay waxem di commandé la Jaafaaj ak ñoo xam ne ñi dañ leen di wax buur tur wi buur la waaye nag du ñu buur ko buur Puxaam buur buur Ngoye buur euh, euh, buur Mbarat ak euh, buur Patar ñoom dañ leen doon wax ay buur waaye nag ay chef lañ nekkoon yoo xam ne quand bien dañ doon ñëw jaxaab dekk am rang de ministre waaye terewuloon dañu amoon ay dëkk yoo xam ne dañ ko doon euh, administré soo ko seetloo dëkk yi nga xam ne ñoo nekkoon dëkk siin yëpp bu ci nekk am na ci foo xam ne fii nga faroon soo jëlee par exemple dëkk bu mel ni Ngoye ka fa nekkoon buur Ngoye moo doon administré euh, parti boobu nga xam ne moo dale boori Ndiosmone dem Ngoye ba ba ngay dem Lul Sessène nga xam ne foofu aussi am na koo xam ne kii moo nekkoon Lul moo doon administré foofu nga dem ba Cilaas am na ku ñuy wax Cilaas moo doon administré foofu waaye soo seetloo alaaji euh, biig il faut situer tout dans le temps dañ ne woon dañoo jàpp fonctionnement du Sine à partir de Wasila Buur Sine Wasila mi nga xam ne moo sanc Jaxaaw donc ñu ngi waxee fi nga xam ne foofu la nga xam fi nga xam ne foofu la Sine amee capitale jaxaw ba en cent 1859 parce que en 1859 tubaab bi ba mu xeexee ak buur Sine Coumba Ndoffène dafa xaaj réew mi canton de Joal mu nangu ko loolu sax mooy tax bi nga xamee ne buur Sine Coumba Ndoffène bu mag pare na ak service yi loolu moo taxoon muy revendiquer yooyu ba mën nañ wax ne lor li ko lor ci loolu la bokk parce que tubaab bi dafa xaajoon canton de Joal nga xam ne bu njëkk ci siin la bokkoon mu xaaj ko placé ko sous le commandement de Gorée donc ci jamono boobu mën nañ wax ne de Wasila à 1859 euh, jam naka la naka lañ divisé woon Sine euh, ci boobu mën nañ wax ne euh, à part donc le canton de Joal tout le royaume du Sine dañ ko organisé woon fu ci nekk amoon na kilifa boo xam ne moo fa nekkoon ci gat ci gat di ko administré di fa nekkal buur loolu daal ci gattal moom lañ mën a jàpp ci li nga xam ne mooy euh, euh, kii bi formation administrative bi. waaw. ci yan famille lañ xam nga buur bu nekk nag parce que siin li ñu wax li ngeen di wax alternance daf doon am siin maanaam ñii suñ suñ jëlee jëlaat ñeneen ndax siin dafa am ay géño yoo xam ne ñoo doon ñëw ci nguur gi géño fay géño juuf géño Njaay ñooñu ñoo fi mujjee nguur kon buur bi su santoon Diouf comme actuellement buur bi su santoon Diouf la plus plupart de ses chefs yi ci gën bari ci famille yam la leen di jël terewul nag am na dëkk yoo xam ne yii spécialement dëkk yooyu dañ leen affecté ay famille yoo xam ne ñoo leen di commandé mais li ci gën bari buur bi su santee Diouf ñi muy tànn ñu di ko ñu di ko administré di ko jàppale ci famille yam la leen di jëlee dina jël yeneen nag complété mais le plus gros yi ci gën a bari noonu la su buur bi sante Njaay comme par exemple soo seetee recensement 1891 nga xam ne ci 1892 bi nga xam ne Buur Sine Mbacké Ndeb ki sant Ndiaye ki signé protectorat bi en 1891 te 1892 ñu def le premier recensement soo seetee la plupart des chefs ñi nga xam ne ñoo doon administré Ndiaye lañ sant. de la même façon bi nga xamee ne buur bi sant na fay moom it su tane ci famille am lay tànn la plupart des chefs de guerre qui euh, qui sont en même temps des administrateurs de de province. mais famille yooyu mooy famille. Gelawaar meen la meen la alors famille yooyu nag euh, am nañ ñoom yëpp en général euh, dañuy topp benn Gelawaar comme famille Ndiaye su amee Gelawaar Gelawaar boobu la ñuy topp muy muy seen chef de guerre. muy seen seen porte drapeau nga xam ne ci moom la ñu yaakaar ngir ëllëg su kooku fala fal seeni bokk donc euh, en grande partie gelwaar bi moo doon nekk buur mais ñi nga xam ne ñoo ko doon entouré dañ nekkoon lu ñu wax ay doomi buur wala ay kàngam yoo xam ne parce que soo jëlee la famille Sène wala la famille Ngom nga xam ne ñoom ñoo doon nekk ay jaraaf ñoom euh, foofu sax mënoon naa ci préciser que quel que soit x buur bi moom su sultané it euh, ñu def leen bay seen autonomie bopp ñoom ñooy seet ci seen famille yi parce que famille yooyu ñooy set seen bopp kenn koo xam ne kii wóolu nañ ko ñu andi ko buur fal ko noonu la ñuy fale jaraaf jaraaf yooyu aussi day am jaraaf bu mag day am jaraaf bu ndaw mais jaraaf yooyu it dañoo am parce que avant jaraaf yi dañ dañ amoon un rôle d'administrateur tout simple mais bi nga xamee ne dem nañ bi nguur gi am doole jaraaf yooyu aussi dañoo nekk des chef de guerre am ay villages yu ñuy yu ñuy administré origine séeréer la mais dans la pratique dañuy mener une vie ceddo parce que la vie moo di koo xam ni kii tout est entouré autour du roi loolu daal euh, noonu la noonu la doon doxe waaw. mais bëgg naa tuuti ñu parce que ñun ba mag. moom euh, ci ñan la bokk. très bien Buur euh, waaw ci laa ñëw. Buur Sine Coumba Ndoffène Fandeb soo gisee ñu di ko waxtaanee ndax moom moom moom bés bi waaye nag moom nijaayam mooy Semo Maak Diouf Semo Maak Diouf nijaayam mooy Buur Sine mëndoo Ndoffène bu mag ndax. bu Sine Coumba Ndofféne bu mag dafa am jigéen ñu ñuy wax Selbé Niadi Selbé Niadi yooyu moo jur Semo Maak ak Njem xam nga Njem c'est de diminutif de Semo maanaam Semo bu bu gën a tuuti eh, donc Njem ak Semo Maak ñoo bokk ndeek baay Njem nag moo jur Buur Sine Coumba Ndofféne fa ndeb donc soo ko seetloo Buur Sine Coumba Ndofféne fa maak ak Buur Sine Coumba Ndofféne fa ndeb nit ak setam la ci wàllu nijaay ak ak ak ak nijaay maanaam bu sin ku mëndoo feen bu mag mooy nijaayu sama mag sama mag mooy nijaayu bu sin ku mëndoo feen bu ndaw noonu lañ bokkee voilà ci wàllu ndey ci wàllu ndey waaw ñooñu fii ci siin dañuy wax ne ñooy ñooy neegu ñi laa jogoy parce que neegu ñi laa jogoy moo jur euh, euh, moo moo moo jur seen seen maam daal euh, ndax ñi laa jogoy ak ama juuf ñoom ñoo bokk bu sin ama juuf moo moo njëkk falu Euh, jigéenam jural ko jural ko jural ko Coumba Ndoffène bu mag Coumba Ndoffène fa mag remplacé ko moo tax Coumba Ndoffène bu mag aussi bi mu bi mu gaañoo euh, jarbaatam moo ko waroon remplacé may day am intercal parce que boobu la Salmon Faye intervenir Salmon Faye moo remplacé Boursine Coumba Ndoffène bu mag mais après maintenant sa euh, sama mag moo koy moo jël commandement bi ci moom. mais Salmon Faye lu ak Boursine fa mag. Salmon ak Boursine Coumba fa mag seen ndey yee bokk. ñoom seen ndey yee bokk parce que bu sin bu sin Salmon Faye ndeyam a ngi tudd Code Fall bu sin ku mëndoo feen bu mag ndeyam a ngi tudd euh, bu sin ku mëndoo feen bu mag ndeyam a ngi tudd ñi laa jogoy ñi laa jogoy ak ak euh, kooku ak euh, ak Code Fall ay sœur lañu donc c'est la même famille daal soo ko seetloo mais nag li ngeen Code Fall moom moom moo jur moo jur Salmon Faye li ngeen ñi laa jogoy jur bu sin ku mëndoo feen bu mag waaye xam nga keroog euh, dama lay wax ne Salmon Faye koo xam ne kii lu bëri dañ ko cee jaxase ba day jafe nit ñi xam sax kan mooy Salmon ma ne la waaye dama lay jox benn firnde ma ne la Salmon Faye biram la tudd biram kodu soo déggee ci woy yi koy woy duñ ko wax Salmon dañuy wax biram kodu par exemple biram kodu xëy na ñongoloor wala biram kodu war na ci saddu saddu fasam la woon wala biram kodu dawul mbaqaan donc Salmon fay biram la tudd ensuite san moon baayam Abdoulaye la tudd rakki baayam it Abdoulaye la tudd Abdoulaye Xaan Coro Mbaru ak Abdoulaye Jimboor bi ñuy wax borom Saawa Mbayar ak dund ma ca donc ñaari Abdoulaye yooyu kenn ki moo jur san moon kenn ki rakki san moon kenn ki moo jur jën biige bi ci jiloor san moon nag comme baayam ak rakki baayam ñëpp Abdoulaye lañ tudd moo tax ñetti doomam yu njëkk yu mu jur Abdoulaye la leen tuddee moo tax ma ne la baayam Abdoulaye la tudd ñetti doomam yu njëkk yi ki ñuy wax Abdou San gi Saaraar Abdou Sañ Folo ak Abdou Mbootil ñetti Abdou yooyu mooy ay ay doomam ñenn ci ay doomam ndax bu bar bayaar kum bay bayaar pend coro ca Bawol yaa ngi dëgg ay turam xaritu Salmon la Salmon tudde na ko doom mooy mooy caati Salmon ki ñu wax ña moo tax ñu di ko wax ñàkk a penda parce que penda coro faal ba nekkoon xaritam moom la ko tudde Samba Lawbe aussi dafa am ñetti Samba Lawbe xam nga Samba Lawbe damel la nga xam ne mooy doomi Samb ak liggéey xuréja am na Samba Lawbe da sug si la jógob ca Saalum waaye du ñaari du benn ci Samba Lawbe yooyu san moom dafa amoon bisik bu ñu wax Samba Lawbe mi daanu mbaqaan moom la tuddee doomam am na doomam bu ñuy wax Samba Lawbe it doomu san moon san moon aussi am na doom bu ñuy wax Njuugo Sem Njuugo Sem aussi doomam la euh, donc euh, li ñu mën a wax ci Salmon fay moo di euh, niñ koy présenté ak lu bëri liñ ciy wax dafa laajoon ñu expliquer ko ndax moom ci wallu boppam yu bëri amul buur bu baax amul buur bu bon buur bu nekk rek ak ak ñi muy àndal waaw loolu daal mën nañ ko ci wax xam na bay moom euh, fan la génne àdduna ak yan circonstances waaw Salmon Faye euh, euh, doomi Ndinguer Code Fall la jamono bi mu nekkee fii nag dafa amul lu bëri lu am ci galwaar yu bari amuñ ko ndax moom moo mën a wax ne man de sama yaay Linguère la ci siin sama maam yit Linguère la ci siin ndax code faal mi ko jur dana nekk lingeeru siin eh, code faal ñi laa fay mi ko jur dana nekk lingeeru siin san moon aussi jigéenam bi ñuy wax san mu jigéen dana nekk lingeeru siin jarbaatam mbakke ndeb moom laa la wax ne moo si protectorat bi donc ci wàllu famille ci côté maternel en tout cas ñu li mu amoon gelwaar yu bari amuñ ko ci wàllu côté baayam Ablaye Xaan Coro Mbaro mi ko jur mooy taawu Lat Sukk ñi naan Samba Lat Sukk ñi naan Samba xam nga ne faat ma Thioub bi mu ñëwee fii Ndiob boobu la sukk ñi laan samba la fi xaa la fi la fi fekk ak nijaayam bu ñu doon wax lat garang ñii ne nañ wax lat garang xorgo ñii di wax lat garang giñ ba mais ak lu mu mën a doon daal nijaayam bu nekkoon lat garang jamono jooju moo nekkoon san gi Ndiob euh, jamono jooju la Birima Fatma ñëw donc kooku moo jur bàyyi salmoon lat sukk ñi laan samba lat sukk ñi laan samba aussi biram jaaxee san gi Ndiob bi nga xam ne mooy taaw buur siin waagaan Kumba Sanjaan moo ko jur donc ti vois que Salmon ci côté wàllu baayam ak ci côté wàllu ndeyam lim ci am yelwaar yu bari amuñ ko ah seetlu nga ko de maamam ñaari maamam yi buur la ci wàllu baayam ñaari maamam yi lingéer la ci wàllu ndeyam suñu tànnee ci yu bëri ñi ko amoon bariwuñu lingéer boo euh, buur boo xam ne sa sa yaay gelwaar la sa maam sa yaay lingéer la sa maam lingéer bariwul de sa baay baayam buur la baayam maamam aussi buur la donc c' était euh, en quelque sorte un prince boo xam ne daal il a il remplacé il remplacé il remplissait beaucoup de conditions. fan la daanoo. waaw Salmon de euh, danañ wax ne am na juróom-ñaari at am na juróom-ñaari bés et aussi euh, mu ngi xam nga dégg ma ne mu ngi fekk baax ñii di wax njongoloon ñii di wax mbóotil ndax fale mooy wallu baayam fii mooy wallu ndeyam mais. Eh, bi nga xamee ne Buur Saalum euh, Buur Siin signé na ak tubaab bi te signature boobu sax moom nanguwu ko respecté si lañ ko génn ci réew mi bi mu ko génnee ci réew mi bu gàddaay dem sa dem dem Bawol xam nga su fekkee ne yaa ngi fàttaliku ci tangu Buur euh, président Léopold Sédar sengoor bu doon yéeg ci guur gi da nga doon dégg ñuy wax Doudou Salmon procureur général Doudou Salmon Fall Doudou Salmon Fall boobu Salmon Fall bi ko jur euh, euh, teñ Ceyasin Joor Galo Ganna moo jur Salmon Fall boobu ak Kanaar Fall Salmon fa xam nga séeréer mënu euh, wolof mënul Salmon wolof Salmon lay wax Salmon boobu Salmon Fay lañ ko tuddee donc loolu moo la woon ne moom dafa yàgg bi mu génnee siin dafa yàgg Bawol bi mu dellu see nag bi nga xamee ne nee nañ buur siin saay na te mu dellu si fexe ba jot nguur gi nee am na am na juróom-ñaari fas am na juróom-ñaari bés juróom at aussi moom la am parce que mu ngi jël nguur gi en 1871 mu ngi daanu xojil xojil ci bëtti jawle la foofu la daanoo en 18 en mars 1878 ndax mbiru Salmon fay li ko dale ci biru Buur Siin euh, Buur Siin Njaak ba ba ci Buur Siin Mayekoor euh, lu ci gën bari tubaab yi bind nañ ko fii lañ ne fii mën nañ mën nañ ko gëstu daal donc Salmon Faye am na am na am na juróom-ñaari at ci nguur gi 1871 1878 Mm-hmm. mais ñu bari bari ci Sénégal. Mm-hmm. li ñu gën a siiwal. Mm-hmm. mooy Salmon Faye buur bu waaw c'est euh, mooy li ma la wax rek alors euh, c'est le discours négatif li ñuy wax un discours négatif yow jànga histoire de France dañu ne woon Attila Attila roi des Huns mu ne fu mu jaar sax suuf du fa sax donc donc loolu c'est ça c'est ce qui est dommage moo taxoon Valérie ne c'est le c'est c'est le plus dangereux produit que l'intellect humain ait produit Parce que l'histoire a des exemples de tout. L'histoire a des justifications pour tout. Donc, loolu mooy problème Salmon am na ñoo xam ne en tout cas li am solo mooy bi mu jëlee nguur gi eh, la l'administration général d'accord ñu woon ak moom di ko defal ay pot de banane ay pot de banane yu bëri mais à chaque fois euh, def la def ko doon esquiver à sa manière bon il avait aussi des adversaires ou des ennemis yoo xam ne defante ak ñoom mais soo ko seetloo parce que la première bataille que Salmon a a faite c'est-à-dire dañu ne Biram Kodou a Ngaye Sadou a Xesto Njongoloor a Doxo a war a a Dama Ndende a a Samba Gueye moom xëy na takk takk Sadou xëy Njongoloor mais soo ko seetloo xëy boobu sax ñaari xëy la ndax bu njëkk ba ba mu njëkkee dem ba mu njëkkee falu rakab bi mu bokkal ndeeg baay bale code fall bi nga xam ne mu ko dëppoo Bour-Saloum Balé Khoreja Balé Ndungu qui a vécu vers les années 1822 au Saloum don kooku lañ tuddee rakam jamono boobu comme nekkoon na la wax di dox ci réew mi dem ba Ngoye mook rakam yooyu bi ñu tudd bi biñ tëddee ci ci ci penc mi ñoom xamuñu ne ay gelwaar lañu tooñante am na daal ba ñu xeex ba Balé Code Fall boobu ci loolu la gaañoo si bien que Salman avait ça sa tête keroog ba mu faloo la njëkk wax ne day fa day feye ko waaye bi muy dem am na woy boo xam ne yandi ko def koy woy euh, buur siin guddiri ñaan xaw ma nu mu koy waxee moon ko li guddiri ñaan ba mu njëkkee dem dañoo dem ba au mois de mais alors euh, euh, taw bi ñëw ñu ne ko ah yow nga njëkk a folu defoo dara ndax xeex danga ngaa war a dëpp ci lañ ko ci lañ ko ci la dëpp am na woy woyu intéressant boo xam ne c'est de la poésie parce que ça rappelle un peu le Cid bi nga xamee ne Donjek bu ngi bu ngi bu ngi xeroog du sud te di ko à vaincre sans péril on triomphe sans gloire ah bi mu koy wax ne xañ xamoon na ñaajaay ñaal ba dama njëkk ko layar lan la guddi di dox bëccëg bay jàpp un commander bay jàpp ay ganaar xam nga bukki bukki bay la war a jàpp c'est pour dire que yow c'est une guerre euh, boo xam ne vraiment tu n'as rien à gagner là-dedans donc loolu moo tax ca diwén sax la sanu jóg venger ses frères foofu bon Sanoud def na une guerre à Mbakane kooku aussi c'est mon mag qui était vraiment le neveu direct de Bour Sine Coumba Ndoffène ne pouvait pas mënuloon mënuloon comprendre que Sanoud moo jël nguur donc préparé na xeex ak moom Mbakane kooku aussi xeex la boo xam ne donc il dafa dafa dafa défendre la couronne xeex na aussi à à Patar xeex boobu aussi xeex bu metti la woon mais xeex boo xam ne sax Sanoud moo amoon sax le dessus s'il est vrai que à Mbaxaan am na ay ñay xale yu bëri yoo xam ne daanu nañ fa mais par contre à Patar moom il a eu le dessus sur les autres bon léegi aussi Salmon ba nga xamee ne booba nekkagul sax buur ca xare coofak moom demoon na intervenir parce que jamono jooju les princes du Sine ak les princes du Saloum étaient solidaires ndax xam nga soo ko seetloo la famille Gelwaar du Saloum ak la famille Gelwaar du Sine ñoom ñëpp c'est la même famille ñoom ñëpp ñu ngi jóge ci Tening Joom donc loolu taxoon na sanu ci wëy yi ngay xamee ne ci wëy yi ngay xamee ne demoon na demoon na coofak parce que dañuy wax ne arrêté coofak maaka damtu ko a mi ñaaj faxa baak bu ne demoon na coofak fa la jàppi góor jàpp ko takk ko ça c'était une manière de daal xeex na foofu il a vaincu voilà c'est ça mais nag alors euh, sanu mu ngi daanoo xojil boo xam ne foofu l'armée du l'armée du Saloum moo appuyé bu euh, Semomak ak ñi nga xam ne d'accord ñu woon ci ci nguuru Salmon ñooñu ñoo dem te it arrangé nañu ba àqojil salmon rek ak ak gardam la ñu rey mais le gros de l'armée xeexuñu parce que dañ leen déjoué waaw loolu la ñu wax de loolu la ñu nettali pour conclure euh, euh, Salmon est un roi comme les autres euh, il est bon dans un sens pour ceux qui étaient avec lui mais il n'est pas bon pour ceux qui n'étaient pas avec lui ñi ko bëggoon d'accord nañu malheureusement nag parce que problème bi yëpp c'est un problème de discours c'est un problème de discours euh, ñi nga xam ne ñoo yore woon jamono joojoo le discours la plupart des griots ñi nga xam ne ñoo nekkoon derrière Salmon dañoo dee dañoo daanu euh, dañoo daanu mbaqaan alors ñi fi des duñu ay géwélam lu neex lu ne la ñuy wax ci moom <laughs> est que tu vois mais danañ wax sax loo xam ne lii xel mënu koo jàpp est-ce que tu vois parce que ngappa ngappa si tu as le temps mën nañ la ko woon garab la boo xam ne fa lañ doon yóbbu ñi nga xam ne dañ leen condamné mën naa am sax ñu ne li waa ñu def leen mais Nkapa existait bien avant Salman existé il a existé aussi bien après Salman donc tu vois que mais alo alors on dit waaw <laughs> Salman donc tu exactement le problème bon léegi maintenant ah. on revient si vous sur la sur euh, euh, fonction maanaam ni ko ni ni nguur gi doon doxee dans le Sine waaw parce que xam nga dama la wax rek ne ñooñu dañ doon dañ doon euh, dañ leen doon nommé ñu nekk mais naka lañ doon doxalee xam nga la réforme administrative de 72 bi nga xamee ne ñëw na dafa instituer des assemblées territoriales jox une certaine autonomie aux aux comment dire aux aux et aux communautés et finalement la réforme de 96 sax andi l'autonomie euh, de gestion des régions loolu bañ ko bañ ko njëkkee sos fii boobu am na suñ baay bi ñu doon wax Lagarang Ndiaye c'est un ancien chef de canton ici son père et le fils aîné du Boussine Koumba Ndoffène Fandène son père c'est la fille aînée di Buur ku mëndoo fen fandem bañ ko bañ koy wax mu ne ah ñii de defuñu dara lii moom lañ ko doon def rek parce que soo ko seetloo la réforme administrative reposait sur deux choses la déconcentration ak la décentralisation déconcentration mooy jël nañu buur jël na ay pouvoir tuuti jox les les gens euh, euh, les gens de des régions ensuite décentralisation am na assemblée régionale yoo xam ne mën nañu délibérer à leur niveau bon soo ko seetloo loolu la Buur Sine doon def parce que Buur Sine def la doon nommé nga nekk Maada Ngoye Buur Ngoye bi ngay ñëw soo ñëwee ba Njaos moon foofu ngay dem wuute Ngoye donc c' est à centaine des centaines de kilomètres ñu dénk la administration bi yow yaay Buur Ngoye euh, mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen nuyoo fii ci Jaxaw capitalu Sine Euh, di leen jaajëfal euh, di leen sant it ci déplacement bi ngeen def ngir ñëw fekke si màggal gi nga xam ne benn la ci monde bi su ma yeboone euh, su ma yeboone noonu rek la demee El Hadj ñu ngi lay nuyu bu baax gis nañ liggéey bu rafet bi ngay liggéey ci biir réew mi di tappewaat réew mi defaraat ko ndax lépp doon benn ndax noonu la woon démb ñu ngi lay sant bu baax nag ci li nga bëgg ñu wax ci muy réew mu siin démb ni ñu nga xamante ni noonu lañ ko euh, euh, organiser woon ak ni nga xamante ni noonu la doon fonctionner léegi nag euh, ci plan wu organisation bi xam nga buur mënta wax ak ñëpp buur mënta dem fépp kon faw mu am ñoo xamante ne ñooy dugg ci digganteem ak population yi di ko demal ak di ko waxal ak di ko teewal ci yenn yi loolu du mën a ñàkk ala al noonu lay demee ndax tamit moom bi muy falu am na ñu ne woon ci ginnaawam bu fekkee day xeex ba jot nguur dafa am ñu koy xeexle buy lal ay plan pour jot nguur dafa am ñu ko ciy jàppale ñooñu nag bu falo da leen di jox ay cër te nguur gu njëkk ga tamit kóolute da cee amoon solo kóolute da cee amoon solo boo wóoluwul nit ki am na responsabilité yoo xam ne doo ko ko mën a jox moo taxoon nag tey jii euh, su ma leen ko doon tegal ni nga xamante ne nii noonu lañ ko daan defee démb d'abord ki ñu njëkk a war a mën a wax mooy le grand jaraaf jaraaf bu mag parce que loolu dafa am différence Sine ak ñeneen ñi jaraaf bu mag mooy la première personnalité du royaume xëy na nag boo demee feneen dañuy naan le roi est la première personnalité waaye fii ci Sine le grand jaraaf et la première personnalité Ngom lay sant kooku nag moom li tax ma ne moom mooy la première personalité mooy influence am dafa am doole parce que moom moom mooy fal buur ne ko dénk nañ la suuf si ak ndox mi dénk nañ la la ko wax dénk nañ li nga dénk nag moomoo ko moo tax ma ne ko dénk naa la suuf si ak ndox mi waaye déggoo mu ne nit ñi nit ñi bokkuñ parce que nit ñi moom moom moom moom réew mi jël kum wóolu dénk ko suuf si ak ndox mi xam nga ne Mansa Wally moo njëkk doon buuru Siin mais Mansa Wally du séeréer gelwaar la bu jógee gaaw bu ñëw mais xam-xamam ak compétence am moo tax ñu dénk ko sunu suuf ak sunu ndox waaye déggoo ci nit ñi te tamit euh, dañ ko ko dénk ça veut dire que su ma la dénkee dama lay xool moo tax le grand jaraaf mën naa folli buur bu fekkee ne dafa def erreur bu rëy grand jaraaf mun na ko folli waaw mais grand jaraaf moom kenn mënu ko folli parce que moom la réew mi yaakaar dénk ko lépp te kooku nag mooy sëtu lamaan ñii sant Ngom di euh, ñoom sët lañ ci Jami Ngom Fadial te Jami Ngom Fadial moo fal Mansawaali ca Mansawal nag ba ci ñoo ko bàyyi fi nga xam ne moo fi nekk ñi fi ñi fi nekkoon ñëpp fi jaraaf sant Ngom ki ci mujj mi ngi fi dëkk Maaraan di Ndub Ngom. moom moo fal ñoxo baay bii kon loolu moo fi newoon démb moo fi nekk ba tey su moo jógee ci kooku ma ñëw ci ci bisik xam nga ne bisik du ñu ay séeréer ay naar lañ yu sant Touré ñoom nag 1630 lañ fi ñëw ci jamonoy Waal Joojo Njaay Waal Joojo Njaay bi muy wut nguur gi moom naar boobu ñoo àndoon di ko wut biñ ko jotee comme li ma la waxoon mu bàyyi fi poste bi waaye dindi ka fa woon teg fa mbokkam poste bisik bi mi ngi fi parce que poste de fonction la mu ngi mel ni nga ne ministère de l'intérieur ministre de l' intérieur ñaata ministre de l' lañ am waaye ku ñëw ca ministère ba ngay dem mooy poste bisik poste boobu noonu ñi sant Touré laata ñoom euh, euh, naari yi sant xaabu ñoo ko daan doon ñoom ñu ngi jóge woon Kajoor ñoo ko bàyyi man ñaan moo leen fi andi ci nguuram ndax moom dafa wéetoon ci nguur gi lool fii ñu ne woon ko léegi da ngay dem yow xam nga ci euh, cosaanoo di Kajoor nga wut fa ñu la jàppale ñu lay xelal mu dem fa jël ci ñooñu ndax naar dafa xelu te day dem fu nekk xam na lu ne moom fépp lay dem xam na lu ne moo tax ñu dénk ko loolu lépp lu jëm ci bitim réew képp ku jóge ci réew yi feneen ñëw fii boo ñëwee ci bisik ngay jaar mu laaj la looy dox looy wut koo soxla lan moo doonoon say tànk loolu buur du ko dox bisik mooy def loolu bisik tamit dañoo yàq baat bi mais bi zikri la bi zikri mooy kii tudd yàlla moom dafa am ñaari pouvoir am na pouvoir ñaanal euh, ñaanal le ñaanal ko ci alxuraan ñaanal ko ci ay ci ay xaatim bindal ko euh, euh, mu sangu mu defal ko ay xaatim di ko dugal xalwat ak yooyu loolu moo nekkoon rôle bisik en même temps di doon conseiller lu roi ci lekkam sax ba ci solom ceddo yu bëri fii ci biir seen buñ solo da ngay foog ne ay sëriñ lañ fekk duñ ay sëriñ lañ ku mën doo fen boo seetloo nu muy solo day solo ba kaalawu def nii mooy bi mu waree fas wi te loolu cooleenu ceddo la mais loolu conseiller bisik la conseil kon kooku ku ci am solo la te yàgg na fi 1630 et quelque ba tey ba kii fi nekk sa xarit la xam nga ko euh, Touré boo jogee ci ko nga ñëw ci le grand Farba le grand Farba nag poste confiance la parce que kooku moo yor sécurité réew mi bu réew mi yëngoo moom la ñuy interpellé moom mooy commandé Salmacoor yëpp moo leen di commandé loolu da ci ciy xamee ne le roi a un pouvoir limité. Salmacoor mooy soldat yi waaw Salmacoor mooy soldat roi a un pouvoir limité. nekkul lu ko neex def nekkul lu ko neex wax ñun démocratie dañ ko xamoon dimb kooku mooy wax les salmakoor jóg leen ñu jóg moo leen di naan toog leen ñu toog mais buur mënul yëkkati salmakoor munta ne buur moom lim soxla lay wax wax ko grand jara wala mu wax ko farba kooku mooy le grand ba kooku nag da ngay nekk un stratège de guerre parce que euh, fu ñu demee xare moom mooy lal le plan de guerre ñii fan la ñuy jóge ñu ngi jóge Saalum ñu ngi jóge Kajoor kon nañ def nii nañ def nii nañ def nii nañ def waaw euh, soo jógee ci kooku nga ñëw ci san gi Ndiop mi ngi dëkk fii Ndiop commune Ndiop san gi Ndiop nag en général ku sa papa nekkul buur munoo nekk san gi Ndiop séeréer sax day wax naan oxu fa farat weer na accu njig waaye doo def san gi ku sa bàyyi doonul xuuru siin munoo nekk san gi san gi tamit aussi il faut nga nekk une stratégie de guerre parce que xam nga ne xare yi daan jóge Kajoor yëpp Ndiop lañ daan yem amu ci kenn ku jéggi njob ñëw fii waaw kon san gi tamit loolu moo nekkoon devoir am nga teg ci nag le maa poxam teg ci le joyin teg ci le maa poxam ba loolu ci ngay gisee ne euh, lësin poste yooyu ñoo waroon jaxaw moo taxoon fii kenn mënu fee dugg parce que foo dikkee rek yaa euh, am na ko fa nekk koo xamante ni kooku il a une euh, armée waaw su fekkee da ngaa ñëwee fii di nga fekk maa poxam su fekkee da ngaa ñëwee ko eh, côté bi di nga fekk le Bumi do Somb su dee da ngaa ñëwee fii di nga fekk le Sangi Ndiob su dee da ngaa ñëwee fii di nga fekk le Mapatar kon fooy jaar mënoo am foo jaar loolu c'est stratégie de défense de la capitale te fii nag ay jàmbaar a fi dëkkoon ndax xam nga ne fii séeréer yi fii xare nañ fi xare guddi xare guddi kenn mosu koo gis 1867 bi la jot defee la surtout de Minongor dafa jàll si ne day dugg fii ci dëkk bi waaye Salmakoor yi ñoo ko teeru fii ci Cubaan xare guddi kenn gisut waaye xaw ma daal nu ñu def waaye xare nañ ba génne Lat Joor ci guddi te loolu guddi la woon bu loolu weesoo xam naa maa ngi bëgg a guddal waaw léegi dañuy wax ci ubbeeku séeréer ak yaatoom ndax su ma waxee le da ngay foog xëy na peuple peuple bu xat la déedéet peuple bi peuple bu yaatu la te peuple la boo xam ne dafay dox ci dëgg foofu laay tëjee peuple la boo xamante ni iñaanuñ soxoruñ ndax ki iñaan te soxor du jël gan goo xamante ne ni xamut lan la mu jël am réew dénk ko ko ci koo xamante ni cosaanoo fi muy Mansa kon loolu da ngay gis ne kon ñoom boo amee xam-xam dañ la koy nangul esprit d'ouverture mettre en valeur la connaissance de quelqu'un sa compétence son savoir-faire loolu la séeréer yi defal Mansa te loolu moo fi nekk ba tey ñoxo baay mii boo doon topp liñeem ca Mansa la jëm ki fi nekk bisik boo doon topp liñeem ca naar ya la jëm te ñooñu ce sont des responsables ñoom ñooy les premiers responsables euh, euh, du Sine te ñooy dëkkuñu fi te dañ leen jox déedéet ñii ñu ngi jóge Saalum Touré yi ñu ngi jóge Saalum kii nga xam ne mooy buur moo nga cosaanoo gaabu xoolal lool séeréer yi fi nekk nag ñoom dañ lay jiital ba pare topp sa kaw di xool li ngay def waaw kon loolu da nga ciy xamee ne séeréer yi soxoruñu yi ñaañuñu te ñoo ñu yaatu te loolu nag dafay yàgg ndax soo demee nii ma euh, Makodou Yande Mbaru mi ngi tëdd fii soriwut ci diggante ñaari jaxaw yi fa la tëdd ko c'est un damel di Kajoor Majooj Yaasin Isa ñu ngi ko suul faaraar fii soriwul c'était un damel di Kajoor kon da ngay xamee ne loolu réew mi réew mu yaatu la faxafaal bi ko tubaab bi bëggee sonal ku ma doyoon fa mag dafa yónnee ci moom yónni sal ma ko ne leen ngeen ne ngeen jël ko indil ma ko fii ñu jël ko indi ko ku ma doon fa mag daal di euh, adressé une lettre au gouverneur limal ko ay buuri Saalum yu bëri yu rey ay nit te reyu leen jàppu leen ma ne ko kon kii soo ko buggee jàpp wala nga rey ko parce que dafa rey kon am na lu dox seen diggante lu bokkut ak loolu dañ laa bëgg a jaxaseeg moom waaye bu ma sañoon daal nga bàyyi ko mi fi fii ci man nag waaw ba ba nga koy bàyyee mu soog a ñibbi bi mu ko bàyyee ci la fa xafal soog a kon ñun loolu dañ ci yàgg Lat Joor bi mu amee problème fii la jaar waaw ñaari weer la fi def doog a jàll dem Nioro waaw kon loolu tamit euh, c'est très bien ñu di ko leeral leneen li nga xam ne bëgg naa ko leeral mooy dañuy jàngale école. Euh, le Sine a été sous la domination de l'empire du Jolof waaye loolu nag c'est des arguments historiques lay indi xam-xam waxuma ne doon de mais li ma xam laay wax yéen ñiy déglu ngeen jugé xam nga ñu ngi naan euh, le Kajoor a eu son indépendance en 1549 à la bataille de Danki loolu ñëpp jàng nañ ko xam nañ ko 1549 ci la l'empire euh, du Jolof commencé toj ku nekk di jël sa wàll 1549 fii ci euh, suñu royaume du sud mu ngi tombé ak le règne de Wagan Kumba Sañan nekk 31e roi fanweereelu buur ak benn ñun booba foofa lañ toll ñii ñi ngi soog am seen premier roi empire bi mu ngi tàmbalee toj kan moo créé l' empire du Jolof Njaajaan Njaay la Njaajaan Njaay bi mu feeñee ca Waalo vers les années 1350 affaire bi jaaxal leen xamuñu nit la am du nit xamuñu lu muy nuru dañ ko indi ci Maasawal fekk Maasawal ci turanam mu doon buur kon kan moo njëkk doon buur ah très bien léegi nag da may xoolal léegi ca Njaajaan Njaay ca Mansawaale bi ci ñoxo baay mii ban réew moo fi masa moom siin ca Mansawaale ca Mansawaale bi ci Buur Siin Mayekoor wala bu ci ñoxo baay mii kan moo masa moom siin ñëw toj réew mi teg ci loxo kan moo ko masa def musul am kon loolu erreur la waaye nag euh, noonu lañ koy waxee waaye nag téyewuñ ci la ndax réew mi yëpp ñun ñoo bokk lépp ñun ñoo bokk suñu lépp ndax fii ñi sant Njaay fii Buur Siin Waal Joojo Njaay Sambalam du Njaay ñooñu ay jolof-jolof lañ waaw kon loolu réew mi moo tëddee noonu waaw loolu rek laa ci bëggoon a indi leeral bi ci des mooy euh, xam nga fii ñu dëkk nii euh, dafa nekk ci diggi Sénégal dafa nekk ci diggi Sénégal te séeréer am na loo xam ne yàlla nekk ko may mooy lan ñun dafa mel ni ñun peuple juge lañ peuple juge kii juge nag ci digg bi lay ne du ëppal fii du ëppal fii ndax xam nga lii xew fi bañ daje fi juge la commando fen nekkul woon le juge waaye keroog moom moo joué le di du parce que PV bi waroon na yóbbu sëriñ bi moom moo prononcé wu bañ bàyyeeku kon xalaat moo joué le rôle du juge te nag nit ku baax noonu lay tëddee kii ko bokkuñu réew euh, ci diine ji aussi mu daa far fii ma far fii amul solo li am solo mooy dëggug yàlla dëgg yàllaa ko moom dëgg kenn moomu ko yàllaa ko mën nag loolu la def dafa gis ne lii alali yàlla la mu delloo ko yàlla te ba mu koy def booba nekkul julit ma teg ci ne le 13 bi ñuy dem fii Daaru Marnaan Touba euh, ca bu njëkk ba téeméeri fas ak fukk ak ñeent yi jóge woon fii amu ci kenn ku ciy julit ñi défendroon ko Serigne Touba Daaru Marnaan le 13 kenn du ci julit ñëpp ay ceddo lañ amul kenn ku ciy jullee ka woor amul waaye seen dëgg moo leen jaraloon seen bakkan. am na ci ñoom sax naa boo masaana julli seen kër ñun la tonnel waaw am na fi. waaye loolu kenn du ko wax fii ci télé am na fi ñoo xam ne xam naa leen waaye nag dañoo mën a muñ ndax diini ji loolu la laaj diini ji dafa laaj muñ ak woyof waaw soo bëggee njëkkee fii da ngay njëkkee fii bu ko defee rek ñëpp dana ñëw wuyu si la te séeréer moom naka jekk dafay bañ ku ko ku ko tànc ndax xam nga xeex nañ ak les almoravides 1037 xeex ak mille 1087 1091 ñu soog faa jógee ñëw fii te daraa ko loon les almoravides ni ñu doon xeexee diine diine kenn du ko xeexee noonu tey nga doon jullit wala mara rey la loolu kenn mosu ko dégg koo ko wax mu ne la kaa ñu loolu nag moone kon suñu problème ak euh, ñoñ diine yi ba ci 1230 ci jamonoy waagaan waagaan bu njëkk waagaanu njongoloor laa wax kooku xeex na fi ak euh, ñi dëkkoon Saalum di ay soose loolu moo ko waraloon waaye ca booba lañ gëj a xeex ak ñoom gëj a xeex ak ñoom ba 1867 loolu tamit ma leeral ko alaaj c'est pas une cause religieuse la bataille de Fandane c'est pas une cause religieuse vengeance la vengeance bi mooy lan le 25 euh, avril 1867 la fi Lat Joor ñëw def li mu def fii Mbinongoor surtout boobu bim ko defee ay kilifa yu bëri ñoo ci faatu ki ci njëkk mooy le grand Farba la rey ak son frère Boucarou Ngoni moom la rey papa yi pour sini moom la fi rey léegi nag euh, bi loolu weesoo séeréer si jëngu ne dañuy dem le pouvoir mystique xam nga fi dafa amoon un pouvoir judiciaire am un pouvoir mystique pouvoir mystique bi dañ leen daan déglu pouvoir judiciaire euh, euh, suñu waree def lu jëm ci ate ñoom ñoo prononcé wu loolu sax maa leeral fii démb ñoom ñoo ne toog leen ñu andi leen sëriñ bi fii jarul ngeen di dem te seen pouvoir kenn ku nekk la mu waxoon def na ko yow loolu yaa ma gën a xam kon loolu fayu la ñun dañoo fayu ñoom dañ ñoo tooñ bett ñu rey suñuy kilifa yëpp daanaka ba jeex tàkk ñu ñëw fi siif suñu njaboot yóbbu leen ñooro léegi nag ñun ba ñuy fayu ñun ñoo def suñuy affaire suñu saltige ñoo ñoo def suñuy affaire ba sëriñ bi ñëw fi bi mu fi ñëwee tamit gis nga la ca yàlla dogal kon ñun dañ doon fayu une bataay ñaari victoire fii donga la mu saam ñun liñ bëggoon mooy fayu fayu nañ ma ba jaxu li mu bëggoon mooy ñu doon ay julli ay julli lañ jeex na la mu bëggoon am na ko ñun tamit lañ bëggoon am nañ ko léegi nag euh, li ci des mooy pouvoir yi bu ñu leen doon séparé xam nga da ngay dégg ñu naan euh, les tribunaux nangam nangam fii tribunaux yi dañ fi yàgg Ngelwasi la bii tribunal correctionnel la tribunal correctionnel waaye pour góor ñi Cupaan tribunal correctionnel waaye pour jigéen ñi kon ñun séparation loolu kenn duñu ko jàngal ceddo xamul njaaloo cedo xamul njaaloo gàcce la woon ci nit mu ëmb amul jëkkër léegi nag du fi gàcce waaye bu njëkk ku ko defoon yow ak say mbokk ak say am du jaama ñëppay buddi seen i néeg toxu ndax gàcce ku mosaa sàcc bañ jàppale yeew la ci penc yow boo fa jogee suwaat danga nga faatu ndax nag yeewi buum du ñëpp la jig de am na ñoo xam ne boo leen yeewee ci buum boo leen di tekki ñuy faatu dañuy faat ñooñu nag loolu moo amoon bu njëkk waaye tey da ngay gis ku sàcc ñu jàpp ko tëj kaso mu génn ca suba bëgg a yor-yor mu teg ataaya ci buntu këram di naan nit ñi di fi romb di dem ak a ñëw yaayam dem marché baayam dem ci jàkka ji loolu daawoo fi am kon nit ñi liñ doon ñun nañ ko xool ay garmi lañ waroon a doon ku namp ñaari ween di garmi namp nañ weenu ceddo muy ween gu set wecc ñu dugg ci diini ji muy diini ji gën ci diini ji te mënuñoo wér kañ la ñuy wér. yewal lakin tan fa kis ndega kopi tan ko timma ka tat luga ko kana ta lay le mexe gara ko xon kiro ko xon ngane ma dog ma dog kale si mudu jay ma be a mexe ta mexe a ako abin asiru man adradihi wa sanna la aida ani una kasiru alayne borom gat ka xon kiro me ahmadu kamba fan onda ka soɓnaga koy sirin juroom dak fukku daduk kane sin tuba soɓe o ndaro njaaj waga soɓna den o ndaro telen a nettana khadimo o jaxlat wiin we xabat maqami andi wa baqi karim wa inami rabbil khadimul layarin te jaxlat fop telewet ke ta wattino a ndar dakar taxit maal ta ɓetno a kaal alamani ramanu ɓi sabina ɓe anna khadimu sin madina tele yo bamba xew 1906 1907 Cheikhoul Khadim Imam Maguette Thiam Ngolo 1908 1909 1910 1911 1912 Sëñ Tuba ñëpp ak tamata ak ñaayam talewa bi monsieur Khadim Ramu Bashiri ila Jurbel la dal sesin la ano sirra ma bi siri ma ramu fasiru mawtum ala man gasaw wa azan wa annu la ifam wa ikramu talewa ba ba ta naka joko amaya naka joko ñaarem fa nga ñaarem ba mo ma nga barke fakkante te da nga وسلم تسليما هذه مرزنة نونية في لغة الشريرية هذه مرزنة نونية في لغة الشريرية بسم الله إن تملي تامر ميال إن الحمد لله سوسن ترو ميال إن أغتى مسيح بما كرمنا إن بالله متى يروق في الجنة إن وهو جنة في قرد بيبنا إن maakuda laonga fippala inna in cheikh bamba cheikh bamba cheikh bamba cheikh bamba cheikh bamba mi giɗɗo me camoka girinna in bamarna xane xane me camoka galinna in cheikh mamadou moustapha kamana taxat fa in tagenen jumay tuba refna aljana in sëriñ falu mbekke sëriñ falu mbekke sëriñ falu mbekke sëriñ falu mbekke sëriñ falu mbekke sëriñ falu mbekke kullu fa yaqulu qadim fa in tilahu min cheikh bamba kay li di me tanu ka dalin nayin kada kene cheikh abdullah illahat makke daral kamila na fiyan nayin asuk datokah asupit balay asuk damovot ahado mo say fa in elimana na tuba tuba tuba tuba tuba cheikh abdul qadir makke be eliman na in fakit ñaar fu batego mo sey joni defeer na aljana nayin teewumaa Cheikh Bamba kay kon liggéey demee ca Luka jalin nañ idatini sëriñ Saliou Mbacke sëriñ Saliou Mbacke sëriñ Saliou Mbacke sëriñ Saliou Mbacke el kom fan na fiyan mbayin ba waxtu ba tëje bel na sëriñ Mbacke soxna loo fanaana in o di gay faat ma o di gay ne faat ma xaa soxna xam-xam na in ba in moom dinaa nu kaay jof na na Cheikh Bamba fan na in ndam na nu ke Cheikh Bamba digal du na in نعم باغندق الجنة نعم طوبى لأبد مريد صادق بغد قلبين لهم بخدمة أو بأب أو أبيات تواسط نقلنا باي فالنا دكين لمنا منزل إبراهيم فال منزل إبراهيم فال منزل إبراهيم فال منزل إبراهيم فال منزل إبراهيم فال باب المريد دين فنانا إن جام نقل فلقيتو دكتة وابين tey ci xam ne ko bàyyi moo la gën a siiw waxoon na in in séeréer in séeréer in séeréer in séeréer in séeréer roogoo fi bu ndam na na in te taxu buur siin bu mëndoo fen tuuba seede siñ ba mba fa naana in jërëjëf jokkañal siñ tuuba jërëjëf mbokk jaxaw mbokk population jaxaw yépp ñu ngi leen di nuyu ku ci nekk ci turam ak santam di jiital ci nuyoo bi ki nga xam ne moom moo fi teewal muy monsieur le gouverneur ànd ak madame le préfet ànd aussi ak euh, monsieur le sous ak delegation bi nga xam ne moom la monsieur le gouverneur yëpp àndal di ay chef de service di commandant de brigade ak ñëpp ñi nga xam ne ñoom ñooy ndawal état monsieur le gouverneur ñu ngi lay nuyu te di la dalal jàmm mais di dalal aussi jàmm ñëpp ñi nga xam ne ñëw nañ fi tey di ay invité di aussi ñi nga xam ne ay gan lañ ak ñii nga xam ne bés bi moo leen yëkkati te ñu bokk ci bés bi donc ñooñu ñëpp ñu leen di dalal jàmm monsieur le gouverneur kaddu yi dalal jàmm la ak di wone sunu mbégte ak sant yàlla bi mu ñu mayee ñu fekkee waat bés bi di ko sant bu baax te di ñaan yàlla aussi mu may ñu ñu fekke ko ay at yu bëri ñun ñi ñëpp kenn bañ ci manqué monsieur le gouverneur bés bi dafa am solo ci ñun ndaxte dafa nekk bés boo xamee ne dañuy feddale kóllëre diggante njabootu sëñ Touba ak njabootu Bour Sine Coumba Ndoffène njabootu sëñ Touba nag buñ ko waxee yaatu na ndaxte am na ñi nga xam ne ñoom ñoo fi des di yor héritage bi muy mbàkke-mbàkke yi waaye it am na njabootu ñépp ñi nga xam ne waxuma la dañuy wuyoo tuyoo tarixay murit waaye dañuy jaamu yàlla di julli ci rasulullahi sallallahu alayhi wa waaye bu ñu nee njabootu siin it yaatu na ndaxte Buur Sine Coumba Ndofféne bi muy dem di seede sëriñ Touba lenn rek moo ko yëkkati woon lenn rek moo ko soxaloon lenn rek moo ko farataloon mooy fexe ba li nga xam ne moom la gëm li nga xam ne moom la gis li nga xam ne moom mooy dëgg mu wax ko ak lu mu ko mën a jaral loolu am na ci jamono joo xam ne daanaka ñun ñi ñëpp kenn fekku ko waaye jamono dem na di dox ba dox comme niñ koy waxee lépp loo xam ne mooy dëgg rek mooy mujj ba ñaari njaboot yi xam ne bés boobu dañ ko war a màggal bës boobu dañ ko war a mandargal loolu indi commémorage yu témoignage yu Bour Sine Coumba Ndoffène en faveur de Serigne Touba. loolu nag moo tax ma ne bés bu màgg la ci ñun di wax ne retrouvailles yooyu ak li nga xam ne moom la sëñ Touba représenté du ma ne ci Sénégal du ma ne ci Afrique mais ci monde entier ñëw delloo njukkal. njabootu Bour Sine Coumba su ma nee njabootu Bour Sine Coumba mooy siin yëpp ak fu séeréer nekk loolu wax dëgg yàlla mbégte mënu ko weesu yaakaar mënu ko weesu ci ñaari kilifa yu mag yooyu ne au delà de fi ñu nekk nii ñu ngay toog di saafantewu fi nga xam ne mooy àjjana donc kon monsieur le gouverneur loolu rek laa bëggoon féddale sunu en tout cas mbégte ak sunu pas-pas ci bés bi di wax nag ne aussi waxtaan bi peut-être du mën a gudd waaye damay naan loolu mun na nekk pour ñun moyen boo xam ne dañuy saxal li nga xam ne moom la fi mag ñi bàyyi muy kilifa aada yi ak kilifa diine yi mooy di wax dëgg di def dëgg di wax ngir yàlla tax ñu defaraat jikko yi parce que dafa nekk moment boo xam ne dañu ne dañu nekk ci crise de valeur waaye bu ñu nekkee ci crise des valeurs dama jàpp ne dañoo bàyyi fa ñu war a mën a tibbee dañoo war a bàyyi fa dañoo bàyyi fa ñu war a mën a jëlee référence ndaxte tey bu fekkoon ne kii am ay perte de crise de valeur dafa royoon ci Serigne Touba wax dëgg yàlla kon kooku du réer kooku du bàyyi yoonam kooku fu ñu ko gis dañ koy tagg dañ koy naw parce que dafay am valeur bu fekkoon ne. bépp jullit bépp siin siin bépp xeet dafa roy ci ay jikko mag ñi fi nekkoon ku mel nii Buur Sine Kumba Ndoofeen boo xam ne defe naa ne bañ euh, lu saafaanoog dëgg bañ ñuy lor ci ki nga xam ne mooy nitu yàlla mu jalal la lépp jalal la sa manto jalal la nga jaay euh, hypothèque siin wax dëgg loolu bu ñu royoon ci moom defe naa ne du ñu perdre ay valeur kon la ñuy wuti feneen di ko jéggaani feneen lañ ko am fii defe naa ne loolu moom mooy référence bi donc euh, ci kàddu yooyu maa ngi wax ni monsieur le gouverneur ñu ngi euh, di yóbbante sunu nuyoo en tout cas ñu concernant ci président la république bi nga xam ne moom defe naa ne moo njëkk a nekk parrain wu bés bi bi nga xamee ne daan na ñëw ci bés bi defe naa ne du tey booba directeur la nekk ministre nekk président de l' assemblée nationale jóge fa nekk chef de parti donc jóge fa nekkaat président de la république te fu ci toll la nga xam ne mooy possibilité def na ko ci bés bi ba nga xam ne wax dëgg yàlla ñu ngi koy gërëm parce que jàpp nañ lu mu def ci bés bi siin yëpp la ko defal donc monsieur le gouverneur c' est le moment de conclure mais damay conclure pour remercier encore une fois le comité d' organisation wax nañ ko léegi comité d'organisation bi peut-être que balaa maa jàll ñu ñaanal ki nga xam ne moom moo fi nekk parce que nag euh, tey organisation bi mun naa ne dafa traversé ay moments yu xaw a difficile waaye lu yàlla dogal rek moom mooy li gën te moom mooy lu ñu war a nangu ndax ki nga xam ne moo nekkoon colonel Sidi Bouya donc euh, def fi jóge te ñëpp xam nañ la colonel Sidi Bouya Ndiaye li nekkoon taxawaayam ci bësam li nekkoon pas-pasam ci bës bi diggante Serigne tuubaa ak Bur Sine Coumba Ndoffène mais ci aussi biir Sine yàlla jële ko fi ñu ngi koy ñaanal yàlla mu xare ko àjjana wëlbatiku yàggul dara sunu waajur bu jigéen aussi muy Aminata Henriette Diouf jóge fi te ñëpp xamoon aussi taxawaayam bi mu xam ne amoon na ko ci bës bi ak ñeneen ñi nga xam ne jóge nañ fi ñu ngi fexe ñi ñaanal leen yàlla xare leen àjjana di wax nag ne organisation bi monsieur le euh, le colonel May euh, Mayekor ñu ngi leen di féliciter di jaaral félicitation yi ci yow ndaxte ñëpp xam nañ aussi organisation bi di métti ak li ngeen di daj suba ngoon yéen a ngi réunion suba ngoon yéen a ngi dugg di génn te mbir mi jafe na léeg-léeg yi jafe léeg-léeg aussi euh, entrée yi jafe waaye di ngeen fexe ba bés bi taxaw te aussi taxaw ci ni mu gën a rafete donc ñu ngi leen di njukkal di leen gërëm di leen sant donc ci kaddu yooyu laa bëggoon jeexale di sinik kene ka ref ka bés ino te koy wareere fa soom a xetalene rek i ngetandita ka waro def pour in moyen fa andoona yee xan sinig fop a nget fat in ndamit comité d'organisation fene donc boo andee xan te ref moment de développement moment de communion moment de retrouvaille pour que a sinig a waag o jof a paam in way ngidma nuun sant a nuun to ngedana nuun nuun fop donc nu nu ndaku no jam donc mbasnuwa nun haq no korité fe joko njal merci beaucoup ni historique une cérémonie aussi religieuse donc c'est cette ambivalence de la cérémonie qui m'a d'abord marqué mais je préfère euh, mettre un contenu beaucoup plus religieux parce que ça a fait appel à une dimension hautement culturelle pour dire que Par rapport à votre question sur la crise des valeurs, mais quand il y a une crise, il ne suffit pas de, de, de, de la constater. Mais il faut répondre à une crise. C'est à la réponse à la crise, n'est-ce pas, qu'on attend euh, toute la société et toute l'intelligentsia d'une société. Nous sommes en face d'une crise des valeurs. Il faut donc convoquer donc les valeurs. Et le témoignage de Boursine en faveur de Hadim Rosson Suntioba est un appel aux valeurs, à nos valeurs ancestrales de Djom, Fit, Fulla, Faïda, mais aussi à des valeurs de stoïcisme, de résignation. Parce qu'il fallait faire un choix. Faire un par rapport à la vie, au, au matériel, mais faire un choix aussi de, de un choix stoïque. Et c'est ce que Boursine a développé par son concept que je voudrais même appeler le boursinisme. Tantôt on passe le ponce-pilatisme, puisque le gouverneur Ponce-Pilate avait fui ses responsabilités, n'est-ce pas Lorsqu'on l'a inter euh, interpellé sur Jésus-Christ, Issa ibn Mariam, n'est-ce pas Il y a les philosophes du, euh, du cynisme qui copient et miment un peu la philosophie de Diogène de Cynique. Mais nous avons Boursine qui a assumé ses responsabilités devant l'histoire, pour s'assumer, pour témoigner, quelles qu'en soient les conséquences. Et c'est ça l'acte de courage. Donc c'est un acte à double euh, impact. C'est un acte d'abord euh, de, de, de, courage. Parce que face aux au, au en contextualisant bien sûr ce témoignage, à l'époque, il fallait être courageux, vraiment pour le faire. Mais aussi, il y a style guerrier, dans le bon sens, de bonne loi. Parce qu'il ne s'est pas simplement limité à témoigner, il s'est aussi euh, engagé à protéger, n'est-ce pas, Sintouba contre la calomnie, contre la déformation, contre la désinformation. Et c'est ça aussi l'autre aspect qu'il faut souligner. Donc c'était euh, le lieu de souligner que nous avons des référents culturels, nous avons des réponses. Donc face à une problématique de crise de valeurs, il faut convoquer toutes ces valeurs-là pour répondre, apporter des solutions, pour apporter des réponses à cette interpellation collective. Et nous avons, euh, Yahao aujourd'hui a une réponse à partager avec le reste du Sénégal et avec le monde entier. C'est un message actuel. Dire la vérité par un temps qui court, mais c'est une gageure. mais cela est sous-tendu, toute vérité est sous-tendue par la liberté. Il faut cultiver, il faut avoir le culte de la liberté. Mais pour avoir le culte de la liberté, comme j'ai dit dans mon discours, il faut avoir le culte du travail, comme dit Khadim Rassoul. Parce que si vous n'êtes pas économiquement libre, vous ne pouvez assumer votre vérité. Donc c'est un message actuel. Voilà. Gouverneur, en Wolof, xam nga temps ñëpp ñu ngi wax ni Non, attends, attends, attends, le musée, il a répondu dans le dans son discours. Non, moi je prends pour D'accord. waa après, vous le prenez. Après, vous le prenez. D'accord, d'accord. Monsieur le gouverneur, dama lay laaj euh, comme temps yi ñoo ngi wax ni jikko yi dafa yàqu. jikko yi dafa yàqu ba te ñëpp euh, constaté nañu ko nga def benn discours boo xam ne ñi la déglu ñëpp dañu xam ne ñun it war nañu am ay tontu ci crise yooyu. Mm. ñu bëgg nga développeel ñu ko. balaa ngay ñëw ci li yi bëgg ci musée bi ñuy wax ak la ah, xam nga olof dafa wax ne boo tëbee dal ci aw xal des na la beneen tëbin xam nga jàmbat fajul soxla àddina du yomb du mës a yomb àddina yàlla ci fitna la bind doomu aadama waaye fitna jooju bu taxawee nit mooy lan mooy sama cër ci fitna jooju. jamono yàqu na ñun yàquñu jamono waa tolluwaayu jamono la te du ñun rek waaye bu loolu amee lan mooy suñu taxawaay mooy dañuy taxaw takku nag ut ay pexe fexe ba mën a baax fexe ba mën a baax nag du dund lépp lu mag ñi daan dund ci jamonoy tey loolu jafe na waaye xalaat ak xel ba mag ña daan dund mën nga cee dund tey du dund li mag ñi daan dunde de ak dundee ni mag ñi daan dunde mais xalaat ak xel ma mag ñi daan dundee mën naa laa dimbali nga dund tey ndax bu buur siin ma ne seedee sëñ Tuuba ne li ngeen koy waxal du dugg am na ñaari jàngat benn bi mooy daa ñeme ndax jamono jooju jamonoy ñàkk moom sa bopp la woon moomu ñëwoon suñu bopp dafa amoon ko fu nekk yore doole ji tiim la ba pare laaj la boo yaakaaree ci moom teraanga doo wax dëgg boo bëggee nekk xaritam doo wax dëgg kon boog Buur Sine wan na gannaaw xaritoo ak waa ji pour wax dëgg wan na gannaaw teraanga ja waaj a yore pour wax dëgg ndax boo ñamee sa alal ñu ñam si sa ñu ñam si sa ñu ñam si sa si si sa si sa si sa bopp boo ñamee si seen alal ñu ñam si sa bopp boo ñamee si seen alal ñu ñam ci sa diine boo ñamee si seen alal ñu ñam si sa ngor kon boog buur siin bëggul woon ñu ñam ci ngorom bëggul woon ñu ñam ci boppam ndax dafa am lu mu tekki woon moo tax loolu la jël teg ci kanam waaye jamonoy tey ji ñu dañ bëgg teraanga ba tax na boo bëggee teraanga te mu ñor la rek wax dëgg dina la jafe soo moomul sa bopp di liggéey ñemee coono ndax liggéey masta yomb di nga yaakaar keneen te boo yaakaaree nit ñi wax dëgg dina la jafe parce que dañu am fu ñu la soxlaa pour nga seedeel leen te la ngay seede du lu lay neex waaye moom moo sa bopp moo tax Sëñ Tuubaa ak Buur Siin waroon a mën a ànd lu tax mënuñu ànd dañ mën a ànd ndax Sëñ Tuubaa daf na liggéey ak jaamu yàlla lu tax ma dugal doole ci liggéey pour nga mën a moom sa bopp la pour nga am autonomie li ñaan autonomisation maanaam moom sa bopp maanaam ñoŋ si sa bopp bu booba di nga mën a sàmm sa ngor waaye bu dee lépp dañ la ko mënal. góoroo ci dara góoroo ci dara lépp dañ la koy mënal bu boobaa wax dëgg dina la jafe de dina am foo xam ne boo fa tolloo doo mën a doo mën a moom sa bopp doo mën a dëggal sa bopp waaye Buur Sine kon dëggal na boppam moo tax tey ñu mën ko nettali tey. àddina nag yàgg fi baax na lool waaye boo fi deful dara soo fi jogul doo fi wàññi dara boo fi jógee doo fi wàññi dara Buur Sine nag wane leen ni tey nii wàññi na fi dara ah. ndax def na fi dara. merci monsieur le gouverneur jëm jërëjëf merci. il l'avait fait en vertu des valeurs du Sine Sine en vertu des valeurs que portent les Sérères des valeurs de vérité de la parole, parole donnée de vérité parce que tout simplement il n'était pas facile pendant ces moments en face du colonisateur qui ne voulait entendre que Serine Touba a fauté, qui ne voulait entendre que Serine Touba s'organisait contre le colon. En face de cette personnalité, tenir un langage contraire, qui était le langage de vérité, il n'était pas facile en ces moments. C'est pour ça qu'il l'a fait avec courage. Mais il l'a fait avec sincérité, parce que, très sincèrement, il ne connaissait pas en Serine Touba d'autres comportement d'autres valeurs que ce qu'il venait de dire. Des valeurs de travail, des valeurs de, de, de, de musulmans, des valeurs d'amour à son prochain. Et ces valeurs qu'il a eu à cité Donc, il y a eu une valeur de sincérité, mais de courage. De courage parce que, je l'ai dit tantôt, il fallait être courageux pendant ces périodes-là pour tenir un certain témoignage. Mais aujourd'hui, nous n'avons pas besoin d'aller puiser ailleurs pour être des hommes de qualité. on homme de qualité, c'est on homme imbu de valeur. on homme qui dit la vérité. Un homme qui fait ce qu'il dit, qui dit ce qu'il fait. Mais on homme qui ne peut pas être manipulé par l'argent, par le bien matériel. qui n'a qu'une seule référence, ce sont les valeurs. Et je pense qu'aujourd'hui, cette journée de commémoration est pour nous une occasion de reposer le débat de la crise des valeurs, mais aussi de rappeler nos enfants, nos petits-enfants et nous-mêmes donc euh, que nous avons un seul référentiel, c'est le bon comportement. C'est aujourd'hui les valeurs que nous ont légué nos ancêtres, que nous ont légué nos pères, nos grands-pères, nos anciens. Ici, surtout dans le Sine. Je pense que aujourd'hui, nous devons pouvoir euh, tirer des enseignements sur cette rencontre de grands hommes entre le Boursine Koumandofène et Serigne Touba qui sont des hommes de valeur. waaw monsieur le maire euh, ci wolof xam nga jamono yi ñëpp dañuy wax ni jikko yi dafa yàqu. goro yi sax dañu tiit ci liy xew actuellement ci àdduna bi yëpp nag du Sénégal donc foo dem léegi nit ñaa ngi naan crise crise des valeurs dafa am te crise yooyu li ko indi mooy ñàkk a am nit ñu mel ni Buur Sine Coumba Ndoffène ñoo xam ni bu dëgg taxawee alal taxaw wala ay bien wala matériel ñu sànni loola lépp jël dëgg féetewoo ko kon tey kooku sa maam la yow yaay meeru jaxaw lan nga xalaat ci crise des valeurs yi ak ndax Bour Sine Coumba Ndoffène FANEP mën na nekk solution pour régler crise boobu. El Hadj Bour Sine Coumba Ndoffène tey bés bi nga xamee ne dañ koy màggal mooy bés ba mu seede woon Serigne Touba wax ne xamalu ko lu dul jaamu yàlla xamalu ko lu dul topp arxuraanam bi xamalu ko lu dul liggéey lépp lu ñu teg ay tuuma ci moom ne day fexe ut armée loolu du lu taxaw bam koy def neexuloon parce que xamoon nañ ne jamonoy tubaab ju njëkk ji ñu amoon doole. loo wax lu leen neexul tey xamal ne dal nañ sa kaw waaye nag daf ko wax parce que dafa amoon njàmbaar pour wax ko waxal ko nag ku ko jaroon parce que aussi loolu moo nekkoon dëgg kooku tey ñuy delloo njukkal man tey bés bi daf may indi ci lu bëri boo waxee valeur xam nga euh, El Hadj tey bu ñu def noo xam ne rek ñàkk valeur manaam ñàkk ngor ñàkk teggin moo ñu ko waral c'est parce que dañoo roy feneen dañoo roy feneen jéggaani la ñu am waaye bu doon ca la ñu am lañ yem du ñu fen du ñu sàcc du ñu wor du ñu xaste du ñu xeex ndaxte ña nga xam ne ñoom lañ amoon muy magu démb yi mel ni bursin ku ma ndóofeen ñu mel ni Serigne Touba jàngaluñ ñu loolu dafa am baat boo xam ne souvent damay dégg sax ñu koy wax ñu naan waxtaan dëgg ca la mm-hmm. boo ne dëgg ca la dafa mel ni dëgg ba daf caarax waxtaan daa war a nekk dëgg kot nit buy wax na wax dëgg sa morom bu ko xas ndax nit jox na la xaalis nga ne naa ko xas alalu àdduna am na baat bu am solo nit la muy gën nit buy sangu du ko summi lépp la alal mun a jënd tey bu ma doon milliardaire lépp laa mën a am ba mu des ngor ba mu des jikko ju baax kooku boo ko yorul yarawuñ la ko amuloo ko loo am ci alal day feeñ ne munoo ko jënd donc wax dëgg yàlla man defe naa ne bés bi tey bës bu màgg la pour que ñu mun a seetaat démb bu ñu jéggaani feneen siin bi li fi am mag ñi def ko fi euh, wax ko fi jëfe ko fi loolu doy ne royu kaay pour que ñu mun a jubal lépp lu am nag ñoo ko teg sunu bopp parce que ñoo seeti référence feneen foo xam ne du référence pour ñun jël alalu jàmbur wax nit lu nekkul seetal nit tey dëkk bi élage di nga gis koo xam ne day jël télé sosal nit taqal nit boo waxee mu ne aqalaayu taalaay te yàlla xam na ne bañ nit moo tax nga wax ko xeex ak nit moo tax nga wax ko bugg a toroxal nit moo tax nga wax ko lu ko jar adduna dong moo ko jar boo jiitalee adduna nag amatoo valeur parce que wax nañ ko léegi la nga yaakaar ci li nga liggéey yaakaar ci li nga am te la nga am nga doyloo ko damay faral di dégg ci rappeurs yi euh, xaw ma woykat yi benn woy bu ñuy wax boo xam ne neex na ma trop boo noosee boo xeebee sa noos boo xeebul sa noos kenn dàqu la noos donc la nga am boo ko valoriser doy